maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi ñuy seetaan di nuyu askan wi yëpp di nuyu le président Macky Sall di nuyu le président Idrissa Seck di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci réew mi également di lancer un appel par rapport ak li nga xam ne le président Macky Sall wax na ko ci ci Covid bi am ni nga xam ne on craint ñu ngi tiit benn deuxième vague ñëw sonal askan wi. mu lancé ci un appel depuis la journée du numérique bi amoon jam Diamniadio mu nekk lu am am solo. Mm-hmm. ñuy ñaan donc tous les sénégalais ñu topp vraiment tegtal yi. Mm-hmm. pour ñu mën a xeex daan li nga xam ne mooy Covid 19. Mm-hmm. parce que rechute bu amee rek. Mhm. déjà dafay gën a ébranler li ñu amoon ci ci ay jumtuwaay te loolu noonu ce sera une catastrophe. Mhm. donc ñu ngi remercier le président Macky Sall ci loolu. Mhm. di lancer un appel askan wi pour ñu gën a téye gën a jàpp pour que en tout cas loolu mun a nekk loo xam ne dañ koy faagagal rapidement. Euh, par rapport ak li nga wax ci assemblée nationale balaa ma cee dem nga may ma tuuti rek mu dugal benn brèche bu ndaw parce que euh, boo seetloo li xew États-Unis tey wala mm. démb ci fan yi nii daal lañ mën a wax dafa am benn nit ku ñuul kuñ fa tab ndomba tànk bu rëy muy Cecilia Elena Rose. Mm-hmm. ñu jox ko euh, mu nekk chefu council economic advisors genre conseil économique la rek bu bu nekk foofu noonu. Mm-hmm. nekkoon nag camarade de promotion à notre à président le président Idrissa. wala bokkoon sax jaar jaar foofu noonu. Mm-hmm. Princeton University mu sargal ko tey sargal ko sargal mu doon doomu sénégalais bu sargal doomu Amérique boo xam dañoo bokkoon fan doon jàngee. ñu denk ko loolu mel ni aussi loolu lañ denk fi président Idrissa loolu lañ koy yi wane ne vraiment Sénégal am na chance parce que am na am na ay grands hommes yu ko yu ko yu ko en tout cas yu ko seq. Mhm. donc pour ñëw ci vif du problème bi mooy. Mhm. xam nga Mamadou Lamine Diallo bu fekkee am na xam-xam. Mhm. dama koy lancer un appel mu mettre ko à la disposition du peuple sénégalais. xam nga parfois da nga gis gars yi ñu dugg ci débat yu bëri. moo tax nekk député maa ngi ñëw j'arrive tout suite da gis gars yi ñu dugg ci débat yu bëri mais en fin de compte li ñuy teg ci table ji lañ leen di laaj parce que dangay ngay am débat yoo xam ne bu fekkee ne c'est un débat partisan. en réalité boo ko jeexee ba ci biir dara ju ca nekk te yéen yi nga xam ne aussi ay journaliste ngeen war a def investigation war a xool wala seetlu war ngeen dugg ci biir xool gars yi li ñuy wax parce que gars yi dañuy indaale ay pic rek parfois ñëw pour lancer te loolu aussi ñu ngi laaj Mamadou Lamine Diallo mu gën a parce que bu ñu la xamee xam-xam wala ñu njorte la xam-xam war nga mën a jël sa temps parfois sax nga ne lii dama koy jebal sama askan di demande un rendez-vous avec le président de la république nga ñëw nga jebal ko ko nga jox ko ko bu fekkee da nga ko yóbbu à la chambre aussi comme question orale wala ko mën di doon na nga xam ne daal Sénégal instant bi dañ toll fa la Francis Fukuyama waxoon mu nekk benn boroom xam-xam bu am solo ba muy in ba muy bind la ba muy bind le dernier la la fin de l'histoire et le dernier homme en 1992 dafa ne woon nañ toll jamono joo xam ne nii képp ku nekk ci réew doomi réew mi bu boolewul rek àdduna dina leen faagaagal donc je lance un appel à tous ces gens là nga xam ne ay bonne volonté lañu jàpp nañ ne am nañ xam-xam ñu participer à construction de l'édifice national. mais est-ce que mën nañu wax ne carrément quelqu'un comme euh, Mamadou Lamine euh, Diallo euh, xam-xamam bi nekkul di koy waxee fu mu ko waxee parce que déjà il député te tamit un da nga koy teg fii carrément pour l'intérêt de la nation bu waxee ne pour ñu tirer au contraire au clair contrat yi nga xam ne moo dox ci diggante Sénégal ak firme pétrolier yi nga xam ne ñoo gagné yooyu les contrats pour l'intérêt du peuple man je ko war a waxee la ko waxee aussi. xam nga Mamadou Lamine Diallo aussi. bi daf ñu xaw a tàmmal ay effet d'annonce yu nga xam ne nii li ci am rek mooy il cherche comme on dit du buzz te loolu noonu warul bokk xam ne boo ko jeexee aussi non non dama la ci jox ay exemple rek waxoon waajal ci chef de l'opposition mooy jox ko ay milliards yi milliards loolu waxoon na ko fi mm. te loolu noonu jusqu'à preuve du contraire tey dara vérifié ci donc li may bañ mooy maanaam ñu nekk def di nihilisme maanaam di politique politique boo xam ne nii parfois doo taxaw seetlu xam ne nag sama askan soxla na ma nga taxaw futeeku jox lépp sa askan ce sacrifice là doit être inhérent en tout au chacun moom jàpp na ne am na xam-xam mais nañ jël bokk la construction gestion comme ni ko président Idrissa Seck defee tey parce que le président Macky mu ngi def ay jéego jéego yooyu muy def nag moom bu jàppee ne moom war na si mën a jàpp mais na bind une lettre def des recommandations le président Macky Sall va l'accueillir et recevoir loolu noonu nekk li nga xamante day dem ci askan wi loolu kese la mais parler pour critiquer wala ngay wax pour sànni ay xeer dans le néant rek comme ça nii bu ñu la laajee nga ne non attendez toutes les mains tous ces grands patriotes pour ñu defar Sénégal loolu rek la c'est un appel que je de façon très simple. Mmh. Mamadou Lamine Diallo y avait un député boo xam ne euh, ba tey si yéen la bokk bien vrai que destitué nañ ko si porte euh, de numéro 2 euh, moom Déthié Fall moom tamit amoon na ay questions yoo xam ne soulevé woon na ko di xam ne ne sa vision kii di président de la République Macky Sall jam yem ñu gis ne aussi ba mu defee sortie boobu léegi am na conséquences yu député buy def liggéeyam est-ce que aussi mun nañ ko sanctionner aussi. soxna si euh, le président Idrissa nit ku am colère la nit ku am reconnaissance ku dal ku bëgg Sénégal la. Mm. et damay taxaw tuuti am une pensée pieuse. mu am colère maa ngi ñëw. da nga ma rek bàyyi ma tontu la. Ah, am une pensée pieuse maanaam xalaat ñi nga xam ne démb dañu àndoon ak ñun bokk ak nuñ combat ñoo xam ne suñu borom def na tey fekkee wuñu continuité combat bi ku ci mel ni suñu papa Bàcc Gajaga defe naa dégg nga turam. Mm. dafa ne lu nekk euh, président Idrissa defal ko Sénégal defal ko askanam ku ci mel ni Ngiraan Ndiaye ku ci mel ni professeur Sangaré ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ku lim jiwum ñoo xam ne c'était des voyants combattants damay taxaw tuuti sama xel dem si ñoom mais également ma taxaw tuuti ne ñëpp ñi nga xamante ne. muy nag demb ak barke demb ak ñoom nga xamante ne bëgg nañ ñëw ak ñëpp nañu taxaw autour du président Idrissa Seck ànd mu jàppale son frère le président Macky Sall avec loyauté engagement xam nga li tax ma wax loolu. parce que le président Idrissa Seck dama la koy wax répété la ko nga jàpp pour nga comprendre. le président mais la ngi ñëw j'arrive tout de loolu. le président parce que euh, le président Idrissa Seck c'est la torche qui illumine no choix politiques s'il veut on le réalise s'il on le ah bon ah oui. même sa euh, xamal tax mox la loolu. nekkul vers xamal tax mox la loolu xamal tax mox la loolu soxna si. Mm. loolu question boobu nga ma posé foofu laa ci toll li may def mooy je lance un appel à tous les frères ñu dem ba comme ni ko président Idrissa di defee tey. gis nga indi na suñu maman Awa Guèye Kébé indi na suñu tata Coumba Ngoye Ndiaye di indi ñeneen ñoo xam ne nii par reconnaissance ak par par par par devoir à la nation moo tax mu koy def un grand rassembleur c'est le président Idrissa Seck nitu jàmm koo xam ne Sénégal kese moo tax muy mu muy rey boppam à tout moment Sénégal moo tax mu mën a dégg lu nekk di ko nag di ko nag dëkku ngir Sénégal donc loolu lay wax ci question boobu noonu je lance appel à tout ma la wax noonu ma bëgg nga jàpp ko dama ne le président mais la décision de Déthié Fall lu mu bëgg attends attends je termine rek lu mu bëgg ñu ànd seeg moom bu wanee yoon ñu topp ko loolu moo tax ñu ànd ak moom parce que loolu lañ koy euh, di xam ne ne carrément li marché wut euh, dëkk est-ce na. Euh, soxna si question boobu noonu loolu la siy tontu. si ah, ah, si li ma la tontu ci question boobu nag ñii seetaan dégg nañ ko yow dégg nga ko loolu la siy tontu. d'accord euh, léegi euh, comme dafa mel ni comme euh, avec cette décision de Déthié Fall à son poste dafa mel ni dafay soulever aussi manque de liberté d'expression bu ñu nemee ko aussi ci parti politique yi. soxna si. parce que déjà déjà que vision du président Macky Sall jam ñaajo la yem loolu dafa mel ni Déthié Fall dafa mokkal rek lu ko Idrissa Seck jàngal parce que Idrissa Seck moo njëkkoon wax loolu quand soxna si li ma la mën a xamal mooy le président Idrissa Seck dafa yëkkati tey dooleem yëkkati xam-xamam yëkkati pas-pasam yëkkati loyautéem ak engagement lépp pour ànd avec son frère la président Macky Sall pour les lendemains meilleurs pour le Sénégal foofu la ñu toll ñun tolluñ ci dara ci leneen lu dul loolu di ñaan yàlla yoon wi nga xam ne jàll nañ ko suñu borom mañis jàmm point bar foofu la ñu toll te loolu dañ koy def nag avec beaucoup de sincérité beaucoup de présence mais également beaucoup de loyauté te li may ñaan mooy. ñun ñi nga xam ne ay ndaw la ñun ñëpp ñuy ànd avec le président Idriss Seck nañu ànd ak moom tey ko bu baax a baax li nga xam ne am na ko ci conviction jëmale ko ci son frère la président Macky Sall yàlla may leen ci ndam égal nga may ma taxaw tuuti parce que en réalité euh, politique du champ de guerre du champ de bataille nekkul ay rente du mondial 14. 14 raison waxal ci côté boobu noonu par exemple dafa am loo wax tey am am wax jëmale coté boobu noonu loo foofu la lay tontu. par exemple tey le président Macky Sall ak président Idrissa Seck ak keneen ku nekk ci langue bi bu ñuy politique la ñuy waxante c' est de la politique mais bu askan bi soxlaa. encore ça veut dire que la parole d'un politicien. non c'est pas ça wax nga loolu j'ai dama ne la li ma lay wax dama bëgg nga déglu ko nga dégg ma dama ne la. Mhm. les hommes politiques dafa am lu leen tënk muy l' intérêt supérieur de la nation loolu waru leen tënk ci dara te foofu da may may ma taxaw fa xam nga doomu aadama dundam nekkul ñëw ci àdduna. juddoo fi màgg fi suñu borom jël la ñu tenk la yóbbu la déedéet doomu aadama boo ñëwee dañ lay mooñ defar la bu fekkee ñun ñi nga xam ne ay góor lañu jigéen sax am na ko ay góor lañu da ngay gis ñoo xam dañuy am ay lël ñi ils font le ndut ñi ils font le bois sacré et boo fa demee dafa am benn maître mot bu ñu lay jangal mooy le sacrifice pour l'intérêt général da ngay dégg ñu naan la da ngay kenn ak sa frère ci àll bi nga dégg c'est des anecdotes qu'on te xiif bay bëgg a dee ñu ne coupe une partie de toi jox ko mu lekk loolu sacrifice la. da ngay dégg laissez-moi terminer laissez-moi terminer euh, damay terminer dama la wax lan mooy sacrifice attends d'abord c'est important li ma wax nii. day gis koo xam ne nii c'est un chef de village boot ñëpp ci askanam ànd ak ñoom nekk ak ñoom ba ci kanam ay boroom xam-xam ñëw ne ko foog nga sacrifier sa doom ji pour askan wi ëllëg lii di waa di ñëw di leen dal day jël doom bi ak deret ni mu foore mu sacrifier leen loolu xam lan lay wane c'est-à-dire que day wane ne moom li ko soxal mooy. askanu Sénégal pour mu liggéeyal askanu Sénégal le sacrifice là qu'on fait maanaam le sacrifice là qu'on fait amul lu koy tenk luy waxu dem wala luy waxu kii on fait ce sacrifice parce que tout simplement on veut développer le Sénégal et on veut participer à la à de l'édifice loolu kese la du leneen maintenant par rapport ak détails yooyu nga ma wax noonu li ma la ca tontu sànq tontu naa la ci je lance un appel à tous les frères à toutes les sœurs yi nga xamante ni ñoo wër le président Idrissa Seck ñu takku ñun ñëpp dëgër tey ko bu baax mu jàppale son frère le président Macky Sall avec loyauté et conviction et tant d'autres aussi waa AFP ñu ngi fi waa PS ñu ngi fi ak d'autres formations yoo xam ne tey bokk nañ dans la mouvance président présidentielle nga xam ne aujourd'hui dañuy jàppale le président Macky Sall pour que incha allah mu am ndam ci mandaam bi loolu mooy suñu combat.